beaucoup. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre du parti, une partie qui vise à renforcer les compétences euh, des autorités, partie, une partie qui vise à renforcer les compétences euh, des autorités, la communauté, euh, à travers des activités de mobilisation sociale, de VAD et de sensibilisation pour un changement de comportement. Mais spécifiquement aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans le cadre de la composante 2 qui consiste à prendre en charge les enfants. Et aujourd'hui, nous avons doté une ligne budgétaire de 11 millions, euh, composée de millions pour le collectif des Ndaï Dara qui doit développer des activités génératrices de revenus pour le compte des Dara. Et euh, un montant de 3 millions pour l'appui au Dara. Parce que comme vous le savez, nous insistons sur l'environnement, sur le cadre de vie et d'apprentissage donc, de nos enfants. C'est pourquoi on a préféré véritablement appuyer les daara en termes donc de, de détergents, de fournitures, en tout cas euh, des choses qui améliorent le cadre de vie donc, de ces euh, daara. Et en dernier lieu aussi, comme vous le savez, les enfants, pratiquement on constate que les maîtres coraniques utilisent euh, des moyens pas favorables en matière de santé. C'est pourquoi nous avons dit on va quand même leur permettre d'avoir euh, la prise en charge médicale. Et nous avons mis une enveloppe de 2 millions pour la prise en charge médicale de 6 812 euh, talibés de la commune de Pékin Nord, ici des 40 euh, daras que nous avons recensés. Et cette prise en charge se fera donc euh, avec une lettre d'exécution technique que nous venons de remettre le, les secrétaires exécutifs des comités de développement de santé. Et donc dans la mise en œuvre, il y aura un dispositif de suivi des activités génératrices de revenus et de la en charge médicale euh, qui se les trois mois sur la base d'un dispositif que nous avons mis dans la cartographie, à peu, pratiquement, on a dit c'est 6-7% donc des 6 millions de ces talibés qui euh, pratiquent la mendicité et qui correspond aussi à 4 daras dans euh, les 40 daras. Euh, c'est important parce que s'il s'agissait même un seul talibé, on va s'investir pour que ça s'arrête. Mais quand même, nous avons la mobilisation de la communauté, nous avons la mobilisation des élus que nous sommes, nous avons aussi la mobilisation des partenaires. Et certainement avec le dispositif que nous venons de mettre en place, donc, et bientôt nous allons mettre en place un observatoire de veille et d'alerte euh, qui constituera véritablement Euh, un, un, un répondant pour jouer un rôle d'intermédiaire entre le projet et les communautés. Et certainement d'ici trois 6 mois, véritablement, on ne plus un enfant des daara de la commune de Pikine Nord pratiquer la waaw tey ñu ngi nii ci projet bi ñuy wax zéro mendicité ci biir commune Pikine Nord nga xam ne ñetti composante la composante bi ci njëkk ñu jagleel ko euh, ni ñuy def ba tàggat euh, xam-xamu autorités yi ci wàllu protection beneen bi nekk naka la ñuy def ba fexe euh, communauté bi euh, mobiliser wu pour que yenn comportement yi nga xam ne ñu ngi koy def maanaam mu jëm ci ay saraxeek affaire yooyu ñu bàyyi ko euh, beneen composante bi moo ñu gënoon a tax a jóg tey jii muy fexe ba nga xamante ne nag xale yi seen taxawaay dana gën a neex dana gën a rafet ci côté yëpp ci côté jàng ci côté wér-gu-yaram ci côté loisir ñu jël benn budget boo xamante ne fukki million ak benn la Euh, ñu jox ci collectifu ndey daara yi juróom benn million pour que ñoom ñu def ay activités yoo xamante ne la cay génn dañ koy séddale 40 euh, daara yooyu nga xamante ne moom moo nekk ci biir euh, Pikine Nord mu nekk loo xamante ne dina ñëw indi saafara ci yenn jafe-jafe yi nga xam ne daara yi dañ koy am ci wàllu nekkin ci wàllu courant ci wàllu fay ndox ci wàllu vraiment gestion wu daara mais aussi ñu am Euh, benn montant wu ñaari millions yoo xamante ne dañ ko jël jagleel ko euh, faju xale yi euh, jox ko suñu post de santé yi pour que xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci daara yooyu ku ci am problème mu faju rek dem faju ji waaye ñu am ñetti million yoo xam ne dañ ko jël jagleel ko daara yi pour que environnement daara yooyu nga xamante ne fa la xale yi di nekk mu nekk environnement bu neex xale yi nekk fa ci nekkin bu neex ñu jox leen ay ay ay saabu jox leen ay ay kotal jox leen daal loo xamante ne vraiment dina mën a fexe ba nga xamante ne xale yi seen nekkin dina dina neex fii ci biir euh, Pikine Nord. Euh, comme ni ñu ko gisee nag Pikine Nord euh, nekk na commune boo xamante ne daanaka ñi fi yalwaan ci daara yi bëriwul trop ci cartographie bi gis nañ ne ñeenti daara la waaye même bu doon benn sax ñu investir rawatina nag mu nekk ñeent mais bëgg nañ. Euh, ci mobilisation boobu ñun ak suñuy partenaire ak moyens yi ñu def nii nga xam ne fan yi rek dinañ teg li ñuy wax benn observatoire boo xamante ne dafa jóg pour surveiller xale yi nga xamante ne ñu ngi ci biir daara yi di yalwaan ci mbedd mi pour ñu indil leen euh, réponse yi nga xamante ne moom moo ci euh, jaadu moo tax ñu ne ñun jàpp nañ ne fii ak euh, ñett juróom-benn weer ñun benn xale bu nekk ci daara fii ci biir Pikine Nord gëm na ne dootul yalwaan waaw nekk na entre juróom-benn ak juróom-ñaar ci ñaar thank you